tàmbaleeg yow quoi fi ma yow ak fi ma yow ak Pape laay tàmbalee yow bon gars yi maanaam yow comme ça yow avantage yi ni nga ko gisee avantage nii comme ça avantage yi Antenne Expresso bi par exemple tey bu ñu ko defee ci tool kenn maanaam ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu fay waajooju nga xam ni maanaam yow avantage bi gën nekk ci avantage u mairie bi comme ça ñu ni mairie bi ñu ngi koy fay ko mi ngi demaat ci kees gi maanaam xaalis boobu noonu ñu versé waat ko population bi comme ça avantage bi yow comme ñu dem ci tool kenn dagg ko ca rek di fay kooku nga xam ne rek moom rek moo moom tool bi ñu koy fay moom dong ak ak ñu yóbbu xaalis bi maanaam ci xaalis bi ñu mais ñu def ko ci mairie bi maanaam xaalis boobu ñu fay ko ci mairie bi ñu defaat ko ci keesu mairie bi mu reversé mu ñëwaat ci population bi yow ñaari avantage yooyu ñaari cas yooyu yow naka nga ko mën a analyser waaw ñaari cas yooyu ni ma ko mën a euh, kii faram-fàccee mooy que ni boo pour ñu def ko ci keesu euh, mairie bi tamit yaakaar naa am na solo mais tamit bu fekkee ni dañ ko ci def ba pare gis ko nga di tan mais buñ ko ci bu buñ ko ci defee duñ ko gis kon daal yaakaar naa ñu mujj ko def ci beneen tool ñu fay borom mu ci gis boppam pour man moo gën xaw ma. waaw seexu mais gars yi li ñuy kaas comme ça man damaa ni man comme ça ñoom ñoom ñu ngi accentuer ci maanaam subvention yi nga xam ne Expresso ci la war a wala ñoom dañ ni maanaam comme ça ñoom ñoom boo xoolee ci antenne bi rek la ñuy wax wërtane foofu wërtane foofu wërtane foofu quoi ñoom dañuy wax chaque jour wërta nekk foofu wërta nekk foofu daa war a génn miir yi man déggaguma ñu ni subvention yi explosé di jox mairie bi naka la dem ñoom li jëntiwul loolu wërta nekk foofu wërta nekk foofu alors que bu nekkee ci tool jàmbur rek sama xam moom soriwul ci yooyu moom mais n'empêche que mairie bi dina ci am subvention ba tey même bu nekkee ci tool jàmbur la ne voilà waaw yaakaar na aussi comme ni ko Pape lay waxee woon rek mm, xam naa xawma ci lu bari aussi mais nag kenn ku nekk da ci wax sa xalaat rek xam nga bon li ma la wax rek mooy que ni maîtriser wu ma ci lu bari daal bu ma sa ñu <laughs> jox sëñ bi Cheikh Naar Diène moo wax <laughs> ci xalaatam moo sa xalaat ñu dalal fi